ci lorule woon ci TER bi train express régional nee na na gaaw bi di ñëw dinañ ñaxtu ba ñëpp dégg leen ndax ba fii kilifay réew mi na waxoon nag ñoom defuñu ko. juróom-ñaari fan ci weeru janvier bi ñu weesu amoon na fukk ak juróomi ndaw yu suuxoo ci géej gi ñàkk seen bakkan gaali looco yi lan jëloon ngir utali Espagne boobaak léegi nag amul kenn ku xam ne si kon ci nguur gi la bokk demoon masawu leen loolee moo metti waa Bunkiling ba tax ñu koy wax. mitin bi waa ko jegi woote woon ni ki démb ay xeexoo moo doxoon ci diggante militan yu taxaw ak yu Pastef loole kon euh, moo ko daal di euh, tas seeni ndaw kon gont woon ku nekk di euh, wax jiiñ ko sa morom waa ex Pastef ne kon complot la bu ñu programmé waa taxaw ne kàccal leen ca te dootuñu may kenn muy dawal ci kaw Barthélemy Diaz inaak waa jàppoo nee nañ ànduñu ci loi d'amnistie bi ndax li ñu yàqule dafa bari ba jéggi dayo te xalaatuñ di ko bàyyi muy niil Cheikh Alassane na moom ne ànd na ci ndax day andi ak dal ci réew mi waaye élection yi li mu jàpp moo di lépp lan war a tëggaat ndax dafa bari ay lënt-lënt tàggat yaram Ligue 1 Sénégal Tëngéej mooy des ca bopp classement bi pikin dafa témbo génération foot naka noonu sport weekend ak Pape Malick mooy buural xibaar yi guddi gi ñu ñaanalante Matar Samb moo nekk ci machine bi. Serigne ci kàddu gi mbokk yi am mbégte ak contentement bu mag toog ci studio RFM di leen jottali xibaar yi guddi gii nañ leen ko waxee ca booba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ñi nga xam si kon ñoo loorule woon ci liggéeyu teer bi train express régional bi lu gàtt gàtt kon ñetti junniy njaboot euh, bokk nañ ca nee na nag gaaw bi di ñëw samedi yamoo ko juróom-ñeenti fan ci weeru euh, mars dinañ amal ay ñaxtu ca caaro yi su ko defee nag ngir euh, becc seenu naqar bokk na ci nag ba fii li nga xam si moom la kilifa yi diggee woon ak ñoom dara lañ ca deful janloog taskatu xibaar yi lañ doon amal ni ki tey jii ci teewaayu Salamata Ousmane Diallo. ginnaaw commandé ay bataaxal jébbal ko gouvernement bu Sénégal te loolee ba tey amu ci tontu ba nga xam ne la ñu bëgg ñoom impacté bu teex di gën a wéy rek di yuuxu seen naqaru xol la bëgg nag mooy nguurug Sénégal daal di respecté ay engagement am Makodou Fall moom mooy coordonnateur bi les collectifs. ñun ñu bind président la République en novembre ñu bindaat ko beneen bind en décembre faat nañ beneen lettre ba nga xam ne premier ministre Ba nañ ko bind amuñu en retour mu bëgg a dem bàyyi bi nii problème bi nga xam ne tey jii impacté dund te marché bi commencement la marché bi ñuy def nii ñu ngi ciy woo yépp Abdoulaye Diop kenn ci ñi nga xam ne impacté terre bi la di daal wax jafe-jafe yi bett ñu ngi koy dund boobee ba tey mbir mi yàgg na lool métti na li nuy jooy moo di sunu kër yi nga xam ne ni boobu ba tey dig nañ ko ñu ngi ñu koy bëgg a jox waaye mbir mi yàgg na fi mu ne ñëpp dañoo sonn am genn wàll yëpp dañu luyee ci bile situation nag ñoom ñi la ñu bëgg rek mooy daal di wàcc ci mbeddu Pikine yi réew mi mu daal di lijjanti boobeeg dossier laataa muy dem. ñëpp gis nañ ni président day waaj dem te ñun on va pas accepter du nangu président di dem bàyyi ñu ak problème bi nga xam ne tey jii ñu ngi koy dund parce que fu mu nekk nii sonn moom waxatuñ ko nit ñi ñi ngi dee sans compter famille yi na ni ñun on a bi mën a jàll lii moom duñ ko nangu dinañ def le tout pour ñu régler suñu problème wala ñun dinañ def impacté bu terre di daal daw ci ginnaaw nguuru Sénégal ngir daal di sàkku ñu daal leen fay wala delloo leen seen kër yooyu nga xam ne yàqoon nañ ko ci bi ñuy tabax teer bi ngir ñu mën a nekk ci anam yi gën Salamata Ousmane Diallo Pikine rajo Futurs Médias. jaajëf Salamata Ousmane jàlloo fukk ak juróomi euh, ndaw ñoo ñàkkoon seen bakkan ca département bu Bounkiling euh, niki juróom-ñaari fan ci weeru janvier bi ñu euh, weesu li ko waral nag moo di gaali locco yi la jëloon doon utali Espagne gaal nga ñu duggoon nag moo suux ñu daal di ca jaaree faatu seeni njaboot nag ñooy yëglu ndax ne ba fii amul kenn koo xam si ñëw na ngir masawu leen boole ci di leen euh, taxawu euh, Dafe Bayo moom mooy euh, président conseil régional de la jeunesse bu Sédhiou ñu teewlu ko Bakary Konté. dañoo bëgg a ñawlu doxalin suñu njiit ñi nga xam ne ni ñoom ñooy suñuy autorité ginnaaw bu suñu région région de Sédhiou ñàkkoon fukk ak juróom ay ndawam ñuy bàyyi ko ci commune bu Bounkiling bëgg dem Espagne ñu daal di lab ci géej depuis le 7 janvier depuis boobaa ba léegi benn autorité amul autorité de la région amul autorité du pays bi ñëw jaale ji famille victime yooyu tey ndaw yooyu ay ndaw sénégalais lañ famille yooyu ay famille sénégalaise lañ pourquoi feneen autorité di dem di jaale ji di euh, conseiller wu euh, famille fii ci diwaan Sédhiou plus particulièrement Bounkiling benn autorité ñëwul présenter condoléance am donc ñun ndaw Sédhiou yi ñu yaakaar ni loolu jaadul ñun ñëpp ay ndaw Sénégal lañ famille ay famille sénégalaise lañ donc je pense que ñun ndaw région Sédhiou mérité wuñu loolu gis nañ Fass booy ni mu demee gis nañ euh, tout récemment Saint-Louis autorité yi dem nañ fa pour présenter seen condoléance mais ba léegi depuis le 7 janvier benn autorité ñëwul ci région Sédhiou plus particulièrement ci commune Bounkiling pour jaale ji euh, famille victime yooyu euh, ñu yaakaar ni loolu jaaduwul loolu vraiment ñu xar yam Inakwa Jàppo ñoom nee nañu àndunu ci loi d'amnistie bi nga xam si nag nguur gi daal na koy mébét bokk ko ci conseil de ministres bi ñu waa weesu li ko waral nag nee nañu euh, ci fitna yi amoon ci réew mi ñoom li nu ci yàqule ci diggante 2021 jàpp 2024 dafa bari ba jéggi dayo te kon bu mbir mi amee seeni mbir kon moo fay daal di jaaree nax saay loole nag ñu yëkkatee ko ne kàddu ca diwaanu Touba ba ñu fa doon amal tukkim nemmeeku euh, ci station service bu ñu fa salfaañee juróom-ñeenti fan ci weeru février bi ñu weesu Mamadou Dieng moom mooy secrétaire waa jàppoo ñu teewlu ko Pape Mbaye Diaw. ñu ngi interpellé aussi état bi parce que ñun ñëpp xam nañ ni ñu ngi wax loi d'amnistie une loi d'amnistie dafay amnistier ay faits je pense que depuis deux mille vingt et li fi yàqu ci alal te nekk euh, ñi ko moom bokk secteur privé bari nañ donc nous demandons à l'état tout simplement que avant muy wax loi d'amnistie mu def inventaire ci. perte yi nga xamante ni secteur privé aussi am nañ ko nekk ay impacté mu xool naka lay def pour réparer ko parce que fii ñu ñëw muy Touba ñu ngi fi ñëw doon xool si opérateur économique yi nga xamante ni dañu impacté par rapport ak manifestation yi mais plus particulièrement ki nga xamante ni membre la ci ñu nekk ci bureau exécutif nekk ki nga xamante ni moo nekk membre fondateur également ci na quoi def fi investissement estimé à centaines de millions tey mu xëy xëy perte ko gisul benn indemnisation bala ñuy wax amnistie quand même les war nañ fexe ba xool ñooñu aussi état gestu leen bu leen bu amee ay réparation ñu mën leen ko def parce que station de millions plus station bi également mënuñu xëy rek ni dañuy amnistier parce que les politiques souvent ñoom mën nañ def yenn conneries si je peux m'exprimer ainsi ñu baal ma mais bu ñu demee dañuy fexe ba trouver ay moyens pour réparer ñuy topp ci ku defoon benn dégât par rapport ak manifestation yi donc nag il est extrêmement important que le secteur privé aussi exige à l'État à ce que aussi mu réparer ñi nga xamante ni identifié nañ leen ñi nga xam identifié ñu nekk ay impacté par rapport ak manifestation yi ngeen di wéy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futur Média juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM démb ci ngoon waa kujje gi ñoo woote woon kon uh, ab toogaanu waa ñaxtu ngir nag naqarlu élection yeeg randal gi ñu bëgg ñoomal ko laata ñaari fan ci weeru avril waaye ci ak pëccëxoo ak xeexoo yu metti la jeexee doxoon ci diggante ak ñu fare ci euh, taxaw bu xalifa Babacar Sall ak ay militant yu euh, ex Pastef bu euh, Ousmane Sonko tey ji nag ñoom ñaari wàll yëpp ku nekk gontu nga wax rawatina seen ay ndaw ñi farek xalifa Babacar sàll moom nee nañu mbir mi nag du ñoom te itam nag dootuñu nangu kenn di dal ci kaw ki nga xam si moo di Barthélémy Diaz fare ci ñoom nekk itam maire bu Dakar Bassirou euh, Samb moo wax seen kàddu ñu teewlu ko ko Mamadou Sy. Le président Khalifa Sall se présente comme le président de la réconciliation nationale. Et dans son programme dafay wax ni. dañu war a jibootle askan wi. dañu war a dañu war a resserrer les mais un homme qui parle de réconciliation nationale ne saurait être à la source d'attaques, d'invectives ou d'insultes. Cependant, ñàkkul fayda. On fait un mauvais procès au maire Barthélémy Diaz. Qui connaît le maire Barthélémy Diaz xam ko ci fulla xam ko ci fayda mais xam ko ci wax dëgg. Ceux qui l'accusent d'aujourd'hui et qui l'insultent, ce sont ces mêmes personnes qui l'adulaient hier. Et Barth n'a pas changé. La question qu'il faut se poser mooy ñi ko doon tagg démb bu ñu ko xasee tey lan moo tax est-ce la mu wax démb arrangé leen moom la wax tey arrangé wu leen mais le maire Barthélémy est resté constant et cohérent ca nam meloon démb je réaffirme la position de taxaw Sénégal et de Khalifa président incha allah initiative bu opposition bi jël ñu ngi ci. ñeneen ñi nga xam si ñoo fare ci ex Pastef di ndaw yi ñoom nag li ñu xamle moo di ne mbir mi ab complot la boo xam si dañ ko daal di programme ngir saboter euh, manifestation bi ni ki démb ñu ne ñoom yëgoon nañ ko laata mbir mi di euh, am daal di nañuy wax ne nag ñoom laale wuñ ci euh, Alexandre sambu moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko Khoudia Dia. coalition faire respecter le calendrier républicain gis nañ ko à travers la presse que amoon na fa ñu doon jaamaarloo foofu mënuñoon ne pour le moment ndax waa Pastef la ou mais li génn ci interprétation dañ ni waa Pastef ak benn parti bon xawma ndax parti la wala mouvement wala association mais am na ñeneen daal ñu doon euh, sànni ay xeer te jàpp nañ ni communiqué bi nga xamante ni moo joge ci ñi organiser manifestation bi mooy FDD euh, ñoom dañ ni c'est des acteurs bien identifiés comme organisateur bi ci boppam nee na moom identifier na acteurs yooyu noonu et que moom dina intenter certainement wala dina introduire une action en justice pour lépp lu jëm ci yoon ak li ci topp maanaam ñoom ñu def ko je pense que ñun lu ñu mën a def mooy au sein de la gps ak de la coalition Diomaye ñun loolu mooy suñu yiite actuellement mais nekkul di tontu wala di xaste wala di xuloo wala di ŋaayoo taluñu ko lu ñu tal mooy li nar a ñëw te fii ku wéet rek xam nga yaay kan parce que jàll nañ fi def nañ local def nañ législative dégg nañ fi lu ne. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu des ba tey ci euh, langue politique gi ak euh, pëccëxoo bi nga xam si nag daal na ci am ci jamono jii ba tey kenn xamagul euh, kañ la ñuy amal élection présidentielle yi loole nag moo tax ba Cheikh Alassane Sène mi nga xam si kon moo jiite jàmmiya réew mi ne mbir mi lépp la ñu war a tëggaat ndax nag da cee bëri nag ak doxalin goo xam si daanaka dafa salfaañoo kàddu yu ni mel mu yëkkatee ko ca diwaanu waa Touba nee na itam lu aju ci amnistie bi baax na ndax dina tax dal daal di gën a am ci réew mi Papa Balla Gueye. mu doon ko ñu ràññee ci kujje gi njiital coalition jàmmi réew mi nag muy xamle ne li ñu war a def jamono ji mooy daal di dooraat processus électoral bi gannaaw ba mu teewee ci diwaanu Mbàkke Cheikh Alassane Sène di xamle ne système d'organisation bi ñu waajalee présidentiel bi daanaka daf cee bari yoo xamante ne jaarul yoon. processus bi fi am il est corrompu. am na ñoo xamante ne jiñ nañ leen de corruption ñeneen ñu jiñ leen de corrupteur. beneen ba ca topp mooy système logiciel bi aussi parrainage am ñoo xam ne nañu ne dinañu jàll ba ñu ko defee ba noppi moo tax nga dégg 19 yi ñu ngi yuuxu waaye dama leen wax ñu dal dal bi mooy élection yu ñu gis ni si tëggaat la jëm kenn ku ne nag tu as ton mu bokk ci candidat recalé yi Cheikh Alassane Sène di xam ne ne jamono ji loi d'amnistie bi mënees na ko amal lépp rek ngir fexe gën a aar jàmmi réew mi ci bépp fànn. coow su amee la cay topp waxtaan la waxtaan nag li ci nit ñi di ut mooy nit ñi bàllante parce que maa ngi koy wax dee du dialoguer luy dialogué mooy ay nit yuy dund yor seen i cër yor seen làmmiñ donc ñii suñu nee amnistie daanoon na fi am ci jamono sengoor am na fi si jamono Abdou Diouf am na fi si jamono Abdoulaye Wade donte sax sénégalais yu bëri ñi ngi jàpp ne dil la mais man li ma jàpp rek mooy ginnaaw ay jàmm ñu suñu coalition jàmmi réew mi la tudd. njiital coalition jàmmi réew mi ànd ak délégation bu am solo daan na profité ci teewaayam ci diwaanu Touba ngir daal di dem feddali kóllëre waaye itam jaale njabootu Serigne Cheikh Issa Diène Serigne Abdou Karim Makh maxaarimal sëriñ Abdou Karim Mbacke borom maxaarimal axlaa ak njabootu fukk ak ñett ñi nga xamante ne ñoom ñoo faatu woon ci accident bi amoon ci yoonu poroxaan wi ci fan yi ñu génn Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média. jaajëf Papa Balla Gueye tey jii kon El Hadj Ibrahima Sall moo nekkoon ganu grand jury ci kanamu de ci Diop bokk na ci la mu fa yëkkatee moo di ne kon inspecteur d'impôts et yi waruñoo bokk kon ci candidat yi élection yi loolee nag ki la di des acteurs bu société civile xamle moo di ne nam ko waxee naam ne dëgër na waaye nag lu aju ci administration bi ak politique bi moom war nañ ko mën a xaajale bu baax a baax ndax la mu gis moo di ne administration bi fii nii ci réew mi politique bi da koo laal bu baax a baax Jibril ñi ngi lay wuyoo ñu teewlu kook Ibrahima Diamé. libéraux yi ci ñëwee. loolu dafa naxsaay dafa daan. administration bi tëddeetul njaaxanaay. tëralin ak euh, doxalin yi nga xam ne moo taxoon ñu am administration. bu xarañ am administration bu tëddee njaaxaanaay loolu gisatuñu ministères yi daf daan am ay secrétaires généraux yoo xam ne dañuy joge ENAM ñu former leen bu baax dañ nommer leen comme par décret comme li ñuy nommer ministre bi par décret euh, le secrétaire d'ambassade yi aussi naka noonu la woon mais dem nañu ba non seulement ministères yi amatul secrétaire ay secrétaires généraux ay benn benn ñoo ñoo ko ñoo ko dese am mais tëralin yi ak doxalin yi nga xam ne moom moo taxoon administration bi Euh, mel noonu yooyu aussi dañu ko finalement affaiblir néewal doole salpaañe ko ba nga xam ne même léegi àgg na ba ci régie financière yi maanaam impôt et domaine ak trésor kon yooyu yëpp la ñu war a xoolaat globalement wala loolu yëpp dañ ko war a xoolaat kon boo ko seetee bu baax ba ci li muy wax dëgg la waaye nag li ñuy wax ci wolof weñ ci ma nga bañe ca mbànjaxaan maanaam ca foofa ca ca ca ndoorteel ba foofu lañ ko war a euh, saafara fii kon la ñuy yem ak mbokk yi ci xibaar yi euh, guddi gi gërëm bu baax a baax Matar Sam mi nekkoon ci machine bi fare woon ci digital ba ak ca production ba Serigne Saliou sekk nekkoon ci kàddu gi réalisation Jo Maron mooy ñëw 21h30 jox leen xibaar yi ci kàllaamay français léegi léegi sport. xibaar ñëw ak yéen ak euh, tàggat yaram sport weekend ngeen ci ànd ak Pape Malick Diaw. kon mbokk yi dal nag jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ñuy tàmbalee football championnat local ñuy woyal fukk ak juróomeeli bëccëg bi ni ki dimanche gi lañ ko doon amal match ba ca gën a doon euh, wala bokk match bañ koy tàmbalee doxoon ci diggante gore ak Génération Foot dañ daal di témboo ku ci nekk dugal benn bu muy nul boo xamee ni euh, daanaka ci ab penalty lañu ñu daal di euh, égaliser pour ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa gore te lool yi neexul benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di entraîneur waa Génération xamee ni mooy Jibi Fall loolu yi nag moom daal dina koy xamle ci ki nga xam ne moom moo di micro Youssouf Bodia. ah jàngat bi d'abord mooy euh, match la boo xam ne ni mu terminé neexuñu parce que boo xoolee ci l'ensemble du yi def nañ match bi nga xam ne moom lañ préparé woon duñ leen waxoon parce que xamoon nañ équipe bi ni muy joué mais aussi état terrain bi. doxoon na métti donc ñun ni ñu préparé suñu match tey jii xale yi boo xoolee bokk na seen meilleur match kontaan nañ si ñoom trop mais yàlla def na daal ci fin bi am na lu ci am loo xam ne foo ñu xoolaat image yi parce que man ba tey foo ma xolaat image yi pour mën a d'accord ni penalty la mais euh, tey vraiment ci match bi ñun ñoo mérité woon am trois points yi vraiment. ñoom ñii di waa Gorée nag kon ñoom ñi égaliser daanaka ci jeexitalu match bi ñoom seen entraîneur di ki nga xamee ni moom moo di euh, Henri Olivier euh, Kabou gannaaw ba Moussa Diatta nekkee fële ca Mauritanie moom le nag li muy daal di rafetlu rek moo di euh, mentalu groupe bi ñu teewlu ko itam ci micro Youssouf Bodian. ci ci contenu bi am nañ satisfaction kon am nañ contenté parce que boo bi ñu duggee dañoo jël but ci ci benn erreur de placement ci défense bi jël but ci mi bi après mi bi waxtaan nañ suñu biir. bon ñu trouvé tamit ñoom seen faiblesse. donc ñu jéem koo mooy bal ñuy joué ci kaw parce que dañu bëree ay joueurs yu yu gàtt. man joué ballon yi ci ci changement si suñu organisation maanaam nu ñu démarré match bi dañ ko changé. ñu indi des deux attaquants 4-4-2. après ñu reculé donc loolu moo indi bit bi ba pare bàyyi ñu benn yoon ba dernière minute la mu égalisé si bopp bi la d' abord quoi. loolu laay gën a euh, contenté maanaam. xam na ni tant que arbitre siffle fin temps. mën ngaa dugal bit te waroon nañ sa dugal deuxième bi yow gis nga si. wutali ji stade Lat Dior bu Thiès foofee nga xamee ni Sonacos dafa doon daral jàmbaar daan ko ñetti bal ci benn muy ndam loo xamee ni ndam lu am solo la rawati nag li des ci saison bi loolu la di kàddu Sidaat Sarr entraîneur Sonacos ñu teewlu ko ci micro Idi Wan. ko xam équipe yi ñoom dajal xam seen parce que réussir nañ ko te soo xoolee premier bi coup franc la deuxième bi kon attaque la troisième bi bi corner parce que liggéey bi ñu liggéey daal feeñ na foofu daal objectif bi nag ñëpp xam équipe boo xam mënoo perte quatorze joueurs nii même ci mercato bi rek pertaan nañ ñetti titulaire donc suñu objectif dem naa ni xam nañ ko vraiment mooy seen maintenir te am naa yaakaar ñu ngi si yoon Pikine ak Linguère ñoom 0-0 la ñu daal di defandi ñi nga xam ne ni sax ñoom ñoo di waa Linguère daanaka bi mooy ñaareelu équipe bi nga xam ne ni daañu foqati poñ wala boog équipe bu màgg ci championnat bi ñuy foqati poñ ci seen kaw ndax Casa Sport lañ ko amaloon ni ki week-end gi ñu daal di koy amal ci seen digganteeg AS Pikine boobee Pikine nga xam ni kon euh, ba tey day daal di des si ñetteelu place bi ñu teewlu ci seen entraîneur Joseph Senghor entraîneur AS Pikine ci micro public bi douzième euh, homme on a toujours envie de gagner les matchs et on joue pour gagner les matchs tey nag yàlla def na li nga taxaw andi taxawaay bu dëgër costaud premier mi-temps bi yëpp xeex nañu andil agressivité ak euh, engagement on a répondu présent ñun duñu yoru bal bi suñu yoree bal bi posé nañu jeu bi contourné amoon na le ballon devant la surface mais tey amuñu présence foofu amuñu réussite amuñu justesse technique donc c' est des choses yoo xam ne tey dañ ko xalaat amélioré ko on ne peut pas gagner tous les matchs mais ñun suñu objectif à domicile mooy les trois points comptabilité trois points à domicile donc tey amuñu ko on est un peu dessus su suñu xoolee aussi suñu marge ak suñu objectif de début de saison on est dans le tempo dañuy continuer liggéey continuer uti ay points à l'extérieur on nous reprochait de duñ on est parti chercher ces trois points à à tey euh, on a échoué a le minimum syndical dañuy continuer liggéey dañuy continuer liggéey amul benn problème. Addo Abdou Majib Diagne moom ci booram moom mi entraîneur Linguère bu saint moom moo di ni joueur mi doxalee ba daal di foqati benn poñ bile waaye nag mi ngi daal di jaajëfal itamit supporter yi teewe woon ci boobee jogante donte mi ngi waajal prochaine journée nar dox seen diggante Tëngéej ñu teewlu ko itam ci micro Moustapha Fall. ñoom bi ñuy ñëw si njëlbeen xam ne ni du yomb parce que jamono yëpp dafa nekk ci si dynamique bu baax am nañu dimanche passé dafa gagné wakaam ñeenti bal ci ci benn c'est à l'extérieur ko donc dafa loolu day day day jox équipe euh, doole day dooleel euh, ba pare ñu ñëw seen kër xam ni ku xam Linguère ak Pikine xam ne musul yomb donc ñu xam ni nag match bu bu jafe la ñuy si loolu ñu pare si xale yi ñu leen bu ñu bàyyi ndax dana metti ak supporters yi di leen jaajëfal aussi parce que lii la équipe soxla public day day dooleel équipe douzième ñu koy waxee euh, fukki om bi ak ñaar point bi duñ si duñ def lu ñuy sant si euh, di ko jéem a yokk euh, dimanche bi di ñëw incha allah suñu suñu kër di dalal tëngeej ñu xam ko xam ne tëngeej moom dem ñu si ñu ngi si forme euh, donc moo nekk ci kaw te li ngeen tëngeej aussi du du yomb ndax ñaari doo ay doomu lébu lañu donc musul yomb te dañ ale bo dañ ñu dañ fa am defet bu ñu naqari bu ñu naqari bu am nu mu demee ay kii rebondissement yu bëri donc duñ koy waajal bu baax a baax di di encore ndokkeelaat xale yi di leen jaajëfal ci yeneen jogante yi ci Ligue 1 bi ba tey ñu jàpp témboo gi dox ci diggante Stade Mbour ak Jamono Fatick ku ci nekk dugal ñaari bi Géejawaay ci borom Casa lay fekki daan ko benn bal ci euh, dara. ci wàllum Ligue 2 bi itam ñu ngi doon wéyal li nga xam ne moom moo di fukk ak yi bëccëg bi ak yile ñetti jongante lu ci mel ni Agel mi nga xam ne moom day daal di daan Oslo euh, daanaka benn bal ci dara Kër Major ak Thiès Tembo. li nga xamee ni moom moo di 00 HLM moom day daal di daan ki nga xame ni moom moo di ñambuur bu Louga. benn bal ci euh, dara ñu daal di wëyal xibaaru tàggat yaram yi football ba tey ak li nga xamee ni moom moo di tournoi masculin bu championnat scolaire bu zone ouest bu li nga xamee ni moom moo di confédération africaine de football waaye ci catégorie u bile bi le nga xamee ni ca Mauritanie lañ ko doon amale Sénégal daal di décrocher li nga xamee ni moom moo di médaille door bi gannaaw final gi mu daal di jël ci seen diggante ak Guinée témboo lañ def ci biir match bi 1-1 ca tiro bi daal di daan 7-6 loolu la jural ak mbégte en seen entraîneur di Pape Ibrahima Faye mi nga xamee ni jàpp na ni formation bi ci suuf képp moom moo daal di dëggër moom dafa daal di doxal rek ñu teewlu ko ak suñu collaborateur ba féetee foofe ca Nouakchott di Aba Diédhiou. mbégte rek vraiment euh, liñ fi ut si woon am nañ ko parce que dama doon wax xale yi ne mission ngeen dem ah mission bi nag réussir nañ ko donc mun mënuma am lu dul di ci di ci kontaan trop trop trop dégg naa ci hmm, beneen mbir mi may wax mooy di jaajëfal euh, ñi nga xam ne ñoo ñu dalal. fii ci compétition bi Mauritanie parce que xale moom ku ko bégal rek daanaka yàlla nga bégal te xale yi vraiment ñoom ñi fi daje yëpp bég nañ muy Cap Vert muy Mauritanie muy Gambie muy Guinée muy Sénégal yu mel nii xale yi dañ ko soxla donc kontaan nañ ci torop di jaajëfal waa Mauritanie ak waa UFOA yi organiser compétition bi merci. tey su ñëwee si si biir match bi Guinée da ngeen daje woon ñi dóoral leen si phase de groupe yi tey ngeen dem final ngeen ngeen ngeen fayu léegi lan moo nekkoon tey euh, moo doon ngeen joxoon xale yi. li ñuy wax différence différence bi mooy ñoom dañoo nekk ay nit ñu am gabarit te yàlla def na tam mun nañ football trop boo xam ne mun nañ football euh, léegi nag bi ñu njëkkee daje ñoom dañ fekk ci sunu mëneel dañ tere dañu tere xale yi ñu laaj bal bi ci seen tànk ñoom dañoo ñoo def li ñuy wax pressing haut après nag a mobile da ngeen def ay mouvement pour ngeen génn ci marquage bi mais après xale yi dañ leen topp ci seen football bi ñu koy dóor ci kaw xale yi ñoo leen gën a athlétique mais yàlla def na xale yi après dañoo comprendre alors léegi nag ñoom dañoo bougé daal di deuxième mi-temps bi bi ñu waxee ñoom ñu ne bu leen yàkkamti même bu ñu dóoree baax na ñu ngeen ba ngeen pour dem Afrique ñu leen da ngeen di teg bi seen tànk ngeen joué donc loolu nag lañ def deuxième mi-temps yàlla may ñu ñu égaliser daal leen yóbbu tir au but ñu gagné leen ñiy jàngale éducation physique yor xale yi ñi yor xale yi ci école de football yi ñoom ñoo ko moom man dama yeggali dama pousse rek mu daal di dem yoonam. ci boobee compétition gannaaw ba Sénégal moo daal di jël final bi daanaka chèque bu toll ci 60 millions ak lu teg lañ daal di teg ci loxoom Guinée bi daal jël deuxième 45 ak lu teg Mauritanie mi nga xamee ni moom moo daal di ci ñetteelu place boobule lay daal di ba tey ci boobee compétition ci wàllum jigéen ñi final bi doxoon ci diggante Sénégal ak Gambie waaye nag ñoom amuñu chance ba góor ñi am ndax Sénégal kii di Gambie moo koy mujj daan benn bal ci dara muy loo xamee ni day jafe digérer loolu Ramata Sey ñu teewlu ko itam ak suñu collaborateur foofee ca Nouakchott di Aba Diédhiou waaw final bi ñàkk nañ ko am nañ si tuuti regret parce que je pense que deuxième mi-temps bi ñu def bu ñu démarré woon match bi noonu amaana peut-être match bi dina demee neneen waaw mais dañu teel a encaissé but donc xale yi xaw a génn si match bi dañoo xaw a manqué expérience euh, mais deuxième mi bi moom euh, vraiment jéem nañ ñëwaat poussé nañ dominé nañ mais malheureusement euh, concrétiser wuñu occasion yi quoi donc voilà beneen yoon rek ñu ñu gën a góorgóorlu waaw yaakaar ne coono la parce que déjà vol bi bi ñuy yegg si fii dafa tardé donc ñu yegg si fii quatre heures du matin euh, enchaîné euh, war a dem jouer wi ji à huit heures donc xawoon na compliqué enchaînement boobu et préparation bi aussi euh, malheureusement xam nga xale yi rek parfois seen këyit yi on a mis du temps pour pour passeport yi et tout ça loolu moo ñu xaw a tardel quoi. mu nekkoon Walimata Sey kon moom mi entraîné jigéen ñi ci li nga xam ne ni moom moo di boobu le compétitions ci catégorie 15 daal di wëyal xibaaru tàggat yaram ba tey ak li nga xame ni kon euh, moom moo di euh, basketball Saint-Louis basket club mi nga xam ne moom ñaareelu defetam lay am ci daal di ci saison bi gannaaw ba nga xamee ni. Euh, ñii di waa DUC ñoo leen daal di euh, daan euh, quarante 40 li leen di wooye nag di Kumba Ndar ñoom ñi leen nag daanaka seen saison dafa daal di jafe loolu tàmbali saison bi DUC daal di profité ci erreur Saint-Louisienne yi daal di creuser li nga xam ni moom di écart bile daal di daan kon ci lu toll ci fukki poñ ak ñeent différence dox seen diggante El Hadj di entraîneur bu DUC moom jàpp na ni bile ndam moom défense bu baax. tax ñu am ko ñu teelu ko ak Ousseynou Diop. tout d'abord damay félicité samay joueurs di encouragé équipe Saint-Louis euh, lu indi loolu mooy si défense lenn lu défense parce que am na benn moment si deuxième quart-temps bi si début troisième quart-temps bi ñu amoon problème en défense mais après loolu la ñu continuer concentré aussi mën naa mettre la pression en défense loolu moo tax ñu gagné ko. waaw ren Duc euh, Duc lii mooy politique am indi ay ay ay xale liggéey ñoom teg benn projet loolu mooy mooy mooy mooy mooy kii politique. objectif yi kon euh, comme année passée def ko comme année passée wala plus rek. ci seen boor ñoom Kumba Ndar yi nag li ñu daal di jàpp rek wala bokk ak seen entraîneur moo di maladresse ak itam yàqamti gu bëri moo waral defet gi ñu daal di koy am loolu di xalaatu ki nga xam ni moom moo di Makhtar Fall ñu teewlu ko itam ak Ousseynou Diop. dig lañ doon jéewal tey dig équipe bu mag la ñëpp xamoon ne du match bu yomb parce que ñun au début dana amoon ay ay ay club ay équipe yu ñu ciblé woon ñi nga xam ne jàpp nañ ñu ne ñoom ñoo tolloo niveau ko mais n'empêche sunu dëkk toujours dañuy wax ku fi ñëw dañ la war a gagné donc objectif bi tey moo doon ñu jéem a gagné bi mais daal maanaam. waaw te xale yu bëre dañu crispé xale yu bëre seen premier match ñu joué équipe bu mag daf ci am ñoo xam dama leen dugal benn action ñu commencé jooy dama leen jéem a remonté moral doxal ma génn waat leen donc yooyu la équipe bi l'équipe est trop jeune trop dañuy daal di jeexalee xibaaru tàggat yaram yi ak basket tey waaye ca États-Unis ak NBA nga xam ne kii di LeBron James mi ngi daal di gën a dugg ci histoire boobule euh, discipline di basketball moom mi nga xam ne ñaar fukki poñ ak juróom-benn lay daal di am ci seen jogante gu mujj dox ci diggante Lakers ak Denver Nuggets. kii di LeBron James daal di gën a dugg ci histoire ndax quarante mille points léegi lay daal di am ci li nga xam ne moom moo di ci carrière am moom mi toll ci trente neuf ans di daal di gën a dugg comme ni ñu ko waxee ci li nga xam ne moom moo di histoire yi la ak yii les record fàttali ni ci février deux mille vingt trois moom LeBron James ci la euh, teggi woon recordu Karim Abdul Jabbar di trente huit mille trois cent quatre vingt points moom mi la nag mi ngi daal di gën a teg tànk ci li nga xam ni moom moo di yooyu les record gannaaw ba. 21e saison moom lay daal di amal ci NBA mu a feeti li nga xam ne moom di 40 ans ci jeexitalu at bi waaye nag boobule record moom la tey daal di taq rek moo di seen diggante digganteeg Denver ci seen dëkk dañ leen mujj daan 124 114 kon mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi jaajëfal leen ci ànd gi jaajëfal itamit yéen ñi ñu ci àndaloon ci li nga xamee ni moo di euh, xibaaru tàggat yaram ci rajo Futurs Médias Pape